alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ma ay canjin gaisuwa ainihin su mana mu yi masu kuma abin da yake roƙon allah tabaraka wa ta'ala allah ya sa wa'annan masoya na allah dan allah

zuciyarsa abin da ta bashi sai ya ji kamar yana cikin kano kuma kamar zai shiga fadarsa a ta kano ba don komai ba sai don cewa zuciyarsa ta aminta kuma tana farin ciki da wannan ziyara da ya kawo ta ta'aziyya kuma babu ko wata tantama cewa duk abin da ake yin dan Allah to babu ranar da zai kare amma abin da ake yin ba dan Allah ba dama wannan abin kararre ne saboda haka wannan tafiyar za ta kare amma wannan tafiya wacce take tsakanin sarki alhaji da maulamu shehu ibrahim tafiya ce ta Allah Allah kuma ba zai kare ba saboda haka wannan tafiya za a ta ganin tana ta tafiya tana ta kare ingantuwa in mai martaba ya ce abin da ya sa da zai shigo nan ya ji kamar fadarsa ce zai shiga ta kano ya ce idan ka zauna za ka hotuna na shehu kala-kala ya ce hakanan idan ka shiga fada ta mai martaba sarkin kano a yau duk kusurwar da ka duba za ga hotuna na tarihi na maulamu shehu ibrahim da shi da masoyansa saboda haka lalle jiya ta yi kama da yau mais martaba waaw lii moo waroon a am walla ñu wax ci olof wala ah damaa gis ne damay wax lu ñu wax rek ah, buur bi dafa eh, wax na lu am solo ci ziyaara bi dafa newoon moom xolam sedd na bum ñëwee fii te itam tam bum duggee saal bi dafa yëg mel ni dafay dugg ci saalam kanu mu ne bu ngeen xoolee ay forteleb yu ngeen gis ci fii ci saal bi dafa mel ni a ah, saalam bu nekk kano boo demee kano tey ci fu ah, ah, nguuram foo xool rek dangay ngay gis portele bàyyi ak ay soppam loolu moo tax démb ak tey daal nuur nañ lool mu ne mi ngi fàttali ne tam bu mu nekk xale taam bu bàyyi dem Kano siyaran bin jik alfu tusamewa ah, talatu ah, sab'u talatin ah, ngeen jégal ma ziyaram bu njëkk ziyaram bu njëkk bu mu moom buur bi dafa ne mi ngi fàttale ne bàyyi bu lekk def leen di oo ñu lekk ak moom loolu mooy wane daal ñoom duñ mën a fàtte bàyyi te bàyyi def na dara ci ñeen mi ngi noonu commencé génn léegi ranke da Allah taimake martaba dafa ne yitam leneen lu muy mën a fàttali ak moom mooy temps bu papam nekkoon ambassadeur mooy Ado Bayero bu mu nekkoon ambassadeur Nigéria fii ci Dakar ci senegal mu ne moom ak moom lañ ànd temps boobu mi ngi xale bu tuuti ñu bari sax dañu foog ne moom Sénégal lañ ko jur mais nag déedéet na leer ci ñëpp moom Nigéria lañ ko jur mais nag bu ko neexee wax man na wax ne mën na wax ne moom waa Sénégal la parce que moom Sénégal xam na ko defi mi ngi xale bu tuuti mais Nigéria lañ ko jur mu ne mi ngi fàttaliku loolu. Allah ya taimake mai martaba Allah taimake martaba Allah kara sarki lafiya dafa ne itam leneen loo xam ne dafa koy dana ko mën a fàttali léegi mooy bu mu nekkee xale papam ah, ah, bu bu magee papam dafay oo ay xaritam ñum xam mu oo mu oo ko bu ñu toogee moom dafay gis ñoom ñu ngee ree mu ne ah xamul lan lan moo tax la ñuy ree dafa dañu fàttalee ah, lu mu defoon bu mu nekk xale la loo xam ne lu jubadi la aw walla mais daal lu mu foog daal lu duhut loolu parce que ku nekk diggante sàng ñu mel ni ñooyu ah lu ñu fàttali ak lu ñu fàttali ci mbiram lu baax lay doon mais nag mais nag lu mën a doon daal moom mi ngi fàttalee euh, papam mi ngi oo ay xaritam ñu nekkoon ak ñoom fii Sénégal ñu toog du ree rek buñ ko xoolee xawma nag lan lan moo tax may muy lañ rey mu ne mi ngi sant yàlla buur bi mu ne mi ngi sant yàlla parce que yàlla may na ko mu nekk mu mën a dugg ci dëkk bi defi mi ngi xale bu tuuti te xam na ne loolu dana am ay ñaan bu bari bu nekk ak moom ah, loolu moo tax loolu lu jar ñu sant yàlla la lu jar ñu kontaan ak loolu la mu ne mu ngi gërëm waa dëkk bi parce que tertu bu ñu leen tertu depuis bu ñu wàccee dakaar ba léegi affaire bi dafay gën a xumb rek dafay gën a neex rek dafay gën a rafet rek loolu moo tax mu ngi gërëm ci loolu mu ngi bëgg ñu jotal gërëmam ak santam ci ñëf ñu nga xam ne taxaw nañ ci loolu te itam bu soobu yàlla du yàgg dara dana paxe dellu fii ci Medina mu ziyaara dëkkam foo xam ne daal foofu yàgg na bu mu ko mu mi ngi ñaan yàlla yàlla na yàlla yaram suñ ñu ñu jiitu suñu sang suñu maam ak suñu papa ak suñu sëriñ ak suñu siyuux ñoo xam ne euh, euh, nopplu nañ nelaw nañ yàlla na tax ñu nekk ak yàlla nekk nañ ak yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne alhamdulilah ti mu ne buuru bi yàlla na ko yàlla dëgëral yàlla na dimbale yàlla na ko yàlla sàmm yàlla na ko yàlla wattu ak képp ku ànd ak moom yàlla na yàlla yàlla faj suñu aat yàlla na yàlla wattu yàlla na yàlla aar yàlla na yàlla dimbali ci bépp suñu aajo bu zahir ak bu baatan ci barke Baye.